yooyu sama ñetti xarit yooyu may ànd. Mm. xam nga ñeenti lañ ñetti ñi. Samba Mawla. Mm. Ba ak ñing dama leen a doose wax leen say affaire ñu gis ma li ma àndal ak ni ma mel. léegi sa ñetti xarit yooyu nga ma présenté woon lu ñu tuddati woon. Bijou Mami Samira. Mango. laa bëgg nga jox ko sama gars yor nanu. yor nañu. yaay laay dangaa dox mais est-ce que mën nañ leen toppatoo comme may toppatoo. mën nañ ko. ñooñu ku ne yor sa kër gu ne yàmbalang hmm. liggéey sa liggéeyu démb ya denc sa xaalis yor ak programme yi ñuy dóor yor nanu de ma jugee naa lu ngeen bëgg danañ ko def hmm. fu nu joxoon danañu dagg yow koy jox ko gars rek wuy ma man nag tey nag bëgg naa laa may sama yaram wax dëgg yàlla ndax nii danga may gis nii rek may dox waaye moomu ma moomu ma sama bopp ah bëgg naa laa may sama yaram moom loolu de laa bëgg dugal ci douche bi sangu ba set nga ñëw ma def lu baax. sangu fii. ah ci sa douche bii. waaw lan la. ñeme nga. loolu su ma ko nga sangu waaw ma ñeme nga. yaa ngi summi ah, sa musiba de. sama dungu de sama yaramu neex xam nga man bu ma nee dungu kan laay kan lan laay nuróol dëggantaan lan la ma lan lañ may jaawaleel bu ma nee dungu kan laay xeem xel mati anaconda. anaconda. jaan jooju gën a gudd ci ci ci àdduna. Eh. bu ko defee ma ma ma ma yulux yulux fu ne ma jaar fa ci sa yaram. waaw maa la wax lii. waay. waa <laughs> sama tuuti waa sama tuuti waay xanaa xamoo ni fii boo ko laalee xam nga trop trop taraj. ay dégg si léegi nga daan waxaati foofu de waaye yow xanaa tutu la. waaw dina lii rek da koy toj. bàyyi ma waaye bu ma. bàyyi ma. ah bu ma ko defati de bu ma ko defati de bàyyi ma rek ma si miir ko. Ah, ma si miir ko sama tutu. Ameth Sarr nga bëgg ma dégg jugal sa yaram. dama lay may sama yaram. may sa yaram ma def nii. waaw nga taxawal. ah a am nga mënoon am nga mënoon. am naa mënoon am naa cravage. waaw dama bii laa lay jox nga may caw dangay bàyyi ba sama yaram tooy ndox baay baay baay rek baay baay baay dinaa ko ñeme ak may entraîner nànk-nànk rek waaw takk ma nag takk ma. rek ba lalal ma kii kii fii kii euh, mbuus. loolee mbuus. ah daa wóor. daa wóor. mën naa fee def dara di. loo fi def. ah yow bon xalaat yow. yow mu bon mii nga xam ne fu ne ngay génn nag ma. ma ah. <laughs> ma laale ba léegi sama yaram baa ngi daw man yii mën na lii ma lay def caressé lii la. waaye fëtté bàyyi ma wàññi fëtté waaga